di ñaan borom bi tabaaraka wa taala defal ñu tawfiq ak taysiir tënk ñu ci siraatul mustaqim waaye nangu ñu itam mbooleem suñu ay ibaadaat mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci suñu émission yaru ak yare ci suñu numéro fukk ak ñaar dëppoo ak le 7 9 mois 2023 dañ ko baaxoo di def émission bu am solo boo xam ne dañ koy ànd ak suñu mbokk Seyid Maxtaar Kebe mu Serigne Saliou ñu di si waxtaan lépp loo xam dafa yitteel ñooñ daara ñu def ba jàngalekat bi di mën a jàngale ñu mën a def ba borom daara ji di mën a taxaw daara ji xale yi nekk ci diggante seen daara bi ak borom daara ji itam li tax seen waajur andi leen fi ñu mën koo jot ci anam gu mucc yoo xam du ànd ak benn lor di nekk nag thème yoo xam ne dafay émission boo xam dañuy dugg ci ay thèmes yu bare bare bare waaye toujours rek jubluwaay bi addiya lay doon ci ki nga xam ne moom dafa jiita mbooloo rek di doxal ngir mën a abbu euh, jikko yooyu nga xam ne jikko lislaam yi ñu gërëm la pour liggéeyam boobu mën ko yóbbu fu kawe. di nuyu nag bu baax a baax a baax Alaaji Sëriñ Sekk mi nga xam ni moom moo ñu jàppandalal lii ba tax ñu mën a taxaw fii di waxtaan di di di laabirante ak mbokk jullit waaye di siyaar wax Cheikh Amadou Fadi Sekk mi nga xam tam moom moo am xalaat bi di nuyu Sëriñ Daam waaye di nuyu itam Serigne Omar Sylla mi nga xam moom mooy ànd ak yow incha allah. di waxtaan waxtaan bu am solo boo xam ne mooy màcc jëm ci booley alxuraan karim waaye di siyaar bu baax suñu. mbokk technicien sëñ Moustapha Sarr ci liggéey bu am solo bi di siyaar mbokk yi bu baax a baax waaye nag. Eh, di sàkku si ñoom itam ñuy ànd ak ñun liggéey bi ci suñu compte Yaatal Mbindum Alxuraan. ndax boo xoolee bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi ñu ngi suñu numéro. 12. te mboolem yëpp mi ngi ci numéro mi ngi ci compte yaatan mbind alxuraan di siyaar walla baax suñu Xaadim Njaay mi nga xam ne eh, moo saytu moo jiite lépp lu jëm si commission scientifique yaatan bind alxuraan ak mboolem ñi si yëngatu si anam gun ci man a yëngatoo kon Sëñ Maxtaar bala ñoo ñëw dañ lay bàyyi nga nuyoo xam naa bu noppee dañuy sof fi ñu taxew woon rek ci suñu numéro bi jàll incha allah dañ waxtaane jikko yu am solo yooyu hmm. xam ne mooy màcc jëm si ak njàmbaar jom fulla fayda ak orma waaye bëgg nañoo dikkaale na it ci li nga xam mooy safaanub njàmbaar xam nga jikko ju arab ŋàññi la comme daan xas itam daanaka xas yu gën a ñoom mooy yow anta jabbaan ab ragal nga kon ginnaaw buñ yaatalaatee ci ci ak njàmbaar ak yasa aju xam naa ci foofu la ñuy jeexele Seyid Maxtaar Kebe tafadal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki C3S bokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ci barab yu fasantikoo yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare tàmbale nuyoo beeg siyaar bi ki sama mbokkum daara sëriñ Mbàkke Sorong di ki teg sëñ Omar Silla mi nga xam ne léegi lañ taqale ko ci benn émission xam naa daañu ci siwaat di nuyu technicien bu baax bii di sëñ Moustapha di ko siyaare bu baax waaye tàmbale nuyoo bi nag ci C3S ka ca bopp di Alaaji Sëriñ Seck sëriñ Fàllu Seck suñ mbokkum daara la di ku yëngatu ci mbir yi itam ñor ko lool sëñ Daam Touré ñu ngi koy siyaare banqaas yi C3S bi fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu émission bi te safoo ko mu ñor leen ñu ciy dugal seeni xalaat ak li ci eh, jël seen temps fooy nekk fu nekk ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax liñ jublu rek mooy defar nu mu baaxee incha allahu rabbi waaw noonu la nga ko waxee Seydou Makhtar noonu la demee xam mooy suñu tomb bi ñu jàll. Mm-hmm. ñu bari si ñi xam ñu ngi topp waxtaan wi. Mm-hmm. Euh, gis nañ ni njariñ li foo ko natt rek passé na ko. ba dañ na waxoon sax nañ ci def ay numéro ay numéro waaye mhm. comme. Mhm. Euh, ku ne xam na ni Seyid Maxtaar macha allah. ci li bëgg développé sax xajul. Mhm. ci une de temps jëlee na vingt vingt cinq minutes. waaye lu si nekk rek. da si ubbi fenêtre ngir bëgg ki bëgg gëstu mën a am fu mu. Euh, te te tànkam. di jaajëfal lu baax nag mbokk yi wax dëgg yàlla danga nga koy rafetlu di ñaan nag. di ñaan di di di wane ni fi ñu toog. yaa ngi leen di gàggante toog yaa ngi leen di gàggante bari na ci am na ci mbokk moo xam nee ma de mm-hmm. sama liggéey bu yàlla doxalee mu mu amaat stabilité mm-hmm. këram teguwaat ci aw yoon ba mën a organiser wu mm-hmm. nee na ci yaru ak yara la ko jànge nee na mag la waaye yaru ak yara daa mel ne ñoo ko yar kon nag lépp moom ci yow la bàyyi ko te loolu aw yiw la boo xam kenn xamul fu muy toll waaye yàlla nañu ko borom bi tabaaraka taala nangul kon suñu maxtaar fi nga mujjoon a junj foofu rek la ñuy ñëw. Mhm. yaa ngoon ci diggante muallim bi mhm. ak mudir bi borom daara ji ak kii jàngale. Mhm. foofu nga xam ni. kenn ku ne si ñoom bu feeñalee ak yoon jox. baa mu feeñal jikko joxum yàlla gërëmu ko. dafay delluwaat ci xale bi nekk seen diggante. dañ war koo xettali. kon ñaar ñoo ñaar ñooñu. gan gan façon njàmbaar. goo xamante si nag parce que bu nit ñi nag nañ nañ nañ bàyyi xel ne inna shajaata fi fi baadi rijaali xilaasatun maa lam tasinha rafatun wa saxra arab yi dañuy wax ne ak njàmbaar su fekkee ne yërmande lalu ko ak tabe lalu ko loolu ak jàggara waaye kenn du ko tuddee ak njàmbaar kon ñaar ñooñu nga xam ni ay éléments yu am am solo lañ ci daara ndax bu ñu tudd daara ñaar ñooñu ñooy tax borom daara ji bu daara du am borom daara ji fi nekkoon te mu koy jàngale jàngale du am kon diggante ñaar ñooñu ak xale bi nekk seen diggante gan jàmbaar lañu war a mën a taxaw ba xale bi li bëgg mu mën koo am waaye fekk nag ñu ngi jiital yërmande ak li di ko jox liñ ko war a jox. jërëjëf euh, sëriñ Mbacke mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ñu mën a nekk desuwaat nañ di leen gën a siyaarewaat rek di leen jokk diggante kiy jàngalu ak kiy jàngale ak ki ñuy jàngal daa mel ne fexeel ak faaxeel ak ma foon xale bi mooy mafool bii mi hmm. ki jëf ji dal ci kaw moo tax jëf ji dañoo bëgg mu baax balaa dal ci kaw mafool bii mi kii jëf-jëf ji na xool ba xam jëf ji baax na bala koo dóor ci kaw mafool mooy faay kii jëf ji waaw moo dañoo bëgg fixal ji nañ ko xool ba xam jekk na ci maanaam jëf ji ndax bokk ndax jekk na ci xale bi am jëf ji daw jëf ji ci boppam rek awalan ki nga xam ne mooy bëgg jëf-jëf ji te na xool jëf ji bu baax mooy itam bala koo dóor ci kaw xale bi ndax xale bi toujours mooy mafool bii mi maam maam jàngale gi mooy final bi ah. aji jàngale ji mooy final bi xale bi ma faulun bi mooy final fail ma faulun bi moo tax final ak fail amuñu problème mhm. li fekk jekk nañ ci ma faulun bi effectivement waaw waaye bu ci jékkul rek xay am waaw du ko mën a nasab fi'lu dam boo ko bëggee dóor ci ko ma faulun bi mën ta nekk <laughs> ok léegi su boobaa kiy jàng toujours daara ñeent ko mu nekk ñeent ko bokk kiy jàng kiy jàngulu ki ñuy jàngal ak kiy taxawu jàng doon te jàngaluwul moom. ndax day ba ak bàyyi defal yàlla mooy mooy ki leen bëgg mooy bàyyi defal yàlla ki su ko defee kiy jàngalu mooy mudir bi. wala ñu ne mooy samp daara ji. wala ñu ne mooy njaatige li wala ñu ne mooy patron bi kenn ku ne ak noo ko mën a dégg. mën a tuddee kooku daa am ay charte yu war a tege ci moom. bu doon ak saxaara moom mooy bopp ba ndax mooy njiit la. kenn jiituwul ku dul ki yor daara ji ah sëñ Saaliw Mbàkke nag radiyallahu anhu daana wax naan njiit daa metti ni bopp saxaar mettee ah, njiit daa metti ni bopp saxaar mettee bopp saxaar niin mooy niin waaw mooy tàng hmm. mooy saxar hmm. mooy yëngu hmm. ndax loolu neex na sëñ sëñ Mbàkke kon fokk mu dëgër moom bu jagul rek dara du dem léegi wago yi nag mooy mooy jàngalekat yeeg ñuy jàng daal ne kon nag kon xam ne na njiit moom li muy tegoo metti na mm. ndax mooy bopp saxaar gi mm. mooy saxar mooy tàng mooy yëngatu mm. mooy riir daa ne nag noonu la njiit mettee ñu ne waaw mu ne waaye nag lépp moo ko yor de nee na bopp boobu de bu ñu ko xasee ba taal wag wuñ lonkiwul nga nangu caa lonk fu bopp bi fanaan danga fa fanaane effectivement waaw wax ji mënoon naa tëgg foofu kon nee na neexul waaye nag mooy lépp ni ñàkk a neexee ndax mooy lépp ci coono ya noonu la mel itam daara bu njiit la jagee lépp ay jag ndax ñu ci ginnaaw ñëpp ay wagu lañ. parce que la bon nag mooy lenn wagu lonki ko. Hmm. foofu la mu laa xam ne maanaam say maanaam kon da ngay ne da dégg foofu sayidul qawmi ashqaahum. ashqaahum. maanaam sangu nit ñi sayidul qawmi xaadimuhum. xaadimuhum xaadimuhum. yow xamaalu kallihim li Alaaji Maalik Seydi Alaaji Maalik rahimahullah di wax <laughs> léegi su boobaa nag jiite yaa yanu seen i coono yaa yanu seen coono. Hmm. su boobaa nag léegi bopp saxaar bi ña ca lonk njëkk a mooy kiñ jël ne kaay jàngale hmm. mooy njëkk a ndax mooy sës rëkk ci bopp saxaar gi moom itam fii ne mooy ëpp ab yëngutu waga yee ginnaaw waaw ndax moo ca sës moo sës waaw bi nga ne jàngaleel ma mooy bopp bi sës rëkk rëkk rëkk ci ci ci ci ci bopp bi wago bi sës ci bopp bi du daj lépp li saxaar gii daj waaye dana daj lenn ci li saxaar gi daj li ko des nag gone yi ca daara ja ku ci nangoo topp ci ñaar ñoo fuñ fanaane da nga fa fanaan waaye ku ci lonke ko gaar bañ la lonki fa ngay fanaan kon nag organisation baa ngoog ci bi vopt ci ni muy doxee la firawna waxoon yonent yàlla yuusuf wa innaka li yawma na makiinun amiin kooku mooy danaa la employé ndax gis naa ci yow makiin ak ak tamkiin wal amaana kenn du jàngale loo ku amul ñaari melo yooyu tamkiin ak amaana tamkiin ak amaana da nga wóor ba pare jekku mbir mi jekku mbir ma boo ko ne mokkal nga alxuraan mu ne rupp mag ñi loolu lañuy wax daawuñu wax mokkal naa rupp rupp nga mu ne koŋ mooy boo bind doo yàq mu ne ko koŋ rupp ak koŋ koŋ foofu la ñuy amaana bi ak tamkiin bi ki lay bëgg a jàngaleel sëñ Saliou Mbacke daana wax naan ku mokkalul alxuraan bu la jàngalee abajada mbaa baasiin miim sax dana ca wax na dëgg parce que du <laughs> parce que baaqidu shay laa yonti li nga amul kay mënoo koo jox. rek da dul am sax. waaw da wax waaw. waaw ah, kay mu ne ku mokkalul alxuraan bu lay jàngaleel ba ca baasiin miim ja bu ko ca xeeb loolu la daan wax kon ki ñëw ne la nga ne ko noo def ak alxuraan mu ne rupp nga ne ko noo defak ak mbind mu ne koŋ. kooku pare na pour am na qualification wa innaka al yawma ladayna makinun amin kon léegi kooku mënees na koo jox daara léegi des nag ay détails la dana ñëw ci rafa baag atf baag yeneen ak yeneen moo tax balaa nit ne yow doy nga ma na xool ci moom sifaat yooyu ba mu doy ko ni ñu waxee mu doy ko ne kon léegi damaa bëggoon nag may itam ku ma jàngaleel saay gone bañ moo ko rupp bañ mokkal rupp nga jàngalal ma leen bind bañ wow koŋŋ jooju yi li ci yow laa bëgg daal mu toxu si ñëw ci man ñëw samay donga léegi bu fekkee ni ñaar yooyu yëpp mat na léegi ku si mel ni jàngalekat bi ci ala sabil misaal moom li ñuy tuddee ak njàmbaar si jàngale moom lan lañu war a séentu ci moom ci ak njàmbaar nam ko defee woon rek bu ko ne defee ndax kenn du mokkal alxuraan ci tappalee ki caaxaan. Mm, waaw foo jaar ba noppi la. Mm. ku tawte ba ñibbisi la nga ne ko nu taw mel rek <laughs> moom lay nettali taw. waaw mu jaar. fa jaar xuus maag. Mm-hmm. dënd yi melax ak. Mm-hmm. melax xam na ko. bu mu bu mu laajaat naan lee lan la. Mm-hmm. fanaanee dox biig mu fanaanee taw ci sa kaw ba bët set. nga ñëw sa yëre yëpp tooy nga weer ko bu yor yore ngay waxtaan naan nu taw mel. déet déet yoo xam nga taw. nam def ba rupp su ko defee gone gi dana dana. dana ne rupp nam def ba ne kong bu ko defee gone gi dana def na kong waaye nag mulaaxaba bi nekk foofu sëñ Mbàkke am na ñoo xam ne seen bopp rek lañ gëm ash-shu'ur bil aaxar ash-shu'ur bil aaxar yi day am ci nit deret ne yow man lii woon ci man daa a toxu si ñëw ci sa doom ma yéene ko ko yéene xam ne sa doom dama ko war a ëllëg si bi la may ndamoo mooy mu mel ne man daa bokk tak ma am ko rek daal di koy fàtte defe ne man rek maa ko war a am ananiya la ananiya ananiya baaxul ananiya baaxul ci defe ne yow ni nga mokkale kenn wër ne mokkale sa mbind mu rafet mi kenn wër ne mën a bindee ananiya la su boobaa kon ki jàngi ba ñëw bu lay nettali daara lu mu xam la su lay nettali njàng ni mettee méttee lu mu xam la tuuti rek moo fi différence bi bu fekkee daa jàng ci daara joo dafa am xaswa maanaam dafa amoon mettit ne nag ndakaaru ak mbaakol nañu wuutee ni la doomi ndakaaru yi ak doomi mbaakol yi wuutee lépp sax naxalal ma gone yi ndànk te bu leen dugal nag ci duma yu metti yooyee ak toñ toñ ju metti joojee nag amul fii parce que attanuñu ko waaw bil xikma wal mawxidatil xasana laa bëgg fii ndax ñooñu bokk ñu xale yi hmm. suñ mbàkkee bu njëkk booy da ko daan woo mu ñëw mu wër ko ne bu ñëw dañ koy dóor te day waaxu tànk yu dëgër hmm, bu ñëwee xool la ngay fixé la bu dikkee fixé la nga ne ko réel mu daanu ci suuf nga ne ko dawal mu daal di yàlla yàlla daw te dara du ko wàññi hmm. kon ne léegi koo ciy dóor lee nga am problème parce que da ngay xaj boo ko wooyee képp buy ñëw mën naa dee ci yoon bi <laughs> parce que ñoom niñ bindoo seen biniye bi hmm. biniye biñ ko formation forme form bi ñu yor moo attanul yenn problème yi su ko defee su boobaa kon différent yi woon gone yu njëkk yi ak gone yu mujj yi ku ko dul mulaaxasa lee nga fay nit te kenn mënut a fay nit kon lee ju tëj kaso kooku moo tax kon ki indi alxuraanam ju mokk fa mu ko jànge na na jël alxuraan ji def ci gone yi te ba ñu jël melokaanu barab ba mu ko jànge def ko ci def ko ci melokaanu gone yi barab bii xar yi dañuy woote fuñ fuñ fuñ màggee ganaar yi di woote am na ganaar yoo xam ne fii ci Ndakaaru bari yóbbu woon tey Jolof ci yenn température yu tàng yi dañuy dee tout suite te ganaar yi foofu ñoom ña ngay for ca naaj waa ka gës a ka environnement yi ñoo bokkul rek environnement yi bokkul nag dañ koy mulaaxa dañ ko dañ koy dañ koy xool insaan ibnu biat yi ibnu biat yi ah, doomu aadama bu ne environnement bi mu juddoo dafay joué ci moom ok su ko defee wax innaka al yawma ladaynaa makiinun amiin ab jàngalekat a koy wax ki muy bëgg a jàngale la waaye kii bëgg a jàng da ko naan ij'alnii alaa xazaa'ini al ard innii xafiidun aliim kenn ku ne bokkut rek sa morom li ngay wax ladaynaa makiinun amiin mooy fii kër gi yaatu na am nga fi sécurité gone yaa ngi nii lii libéré naa la ko mu ne ko nag indi inni xafizun alim man nag indaale naa ca sama daara jama doon jànge xifdu ak alim yi dinaa leen saytu kenn du ci tilim kenn ci fanaan bitti kenn ci kenn du ci mboolem négatif yi dinaa leen ci aar mooy xifdu bi ilm bi mooy su may dugal leçon bi dana dugg nga xam day mel ni ku bëgg ku ko wétali ak ku bëgg fu mu fanaan moo tax ma ne inna xayra man istaajarta alqawiyul amin booy jël kenn bul jël jàngalekat boo xam ne ñaari fan ñett mën damay tukki te ñëw ñaari fan ñett mu porte malade ñaari fan ñett mën ma dem seeti diw te ñëw kooku al qawiyu quwwa amu ci kon istijaar dafay soxla woo al quwwa ak la muy àndal ki ngay jël pour mu nekk emploi mën a emploi bi inna xayra man istaajarta al qawiyul amin maam danaa yaa abati staajaru yaa abati staajaru bi ko xale yi daa doon wax dañ koo fekk ca teen ba mu beru nit ña ni ko fa di mbel mbeli Moussa daa demoon ci ron genn garab ba gis lu jar jóg mu ñëw toppale dañ woo xam ne waateen ba ñëpp attanuñ ko mu jukki leen bañ feesal mu génnaat ca dem toogaat ci ker ga ñu xam ne kii ku am tranquillité la maanaam nit nit ku normal la ngi nii mun leen ñu ne ko kaay wuy sama papa mu ne ko damay jiitu yow xale bu jigéen bi nga topp sama ginnaaw su ma waree jàdd nga sànni aw xeer ca fa ma jëm ndax bëgguma laa aborder ci cas de viol yooyu lañ dajale muy ay argument yu rafet ñu ne ko yaa abati staajir papa jëlal kii ba doj ba diisee moo ko yëkkati ba mu noppee amul ak ba ay wax bi ñu ñibbisee tam amut ak nun ay wax. am ay qualité daal. qualité la qualité yu ñu gërëm daal mi ngi si moom. waaw ma ne ko staajir ina xayra man staajir ta nag alqawiyul amin. kii nga xam ne kon nga xam ne kon foofu nit ki ni muy jëlee ab jàngale jàngalekat <laughs> ak ñun maanaam li ñuy ni ñuy tànnee ak ni ni borom daara yi tànnee des fois day xaw a wute. parce que nit da ngay nekk à distance rek ñaa nga dama laa soxla mu ñëw. mu ñëw maanaam xamul lu melokaanoo. Ah. moom mi ñëw xamul ki mu fi fekk. fekk lan la. ok loolu ñaare dana waral. li sëpp dañuy am suu tafaahum sëñ Maxtaar. ok maanaam jàngalekat bi. Mhm. borom daara ëpp mhm. léegi-léegi. Mhm. nag waaye maam maam majorité bi. des fois dañuy am ak réeroo. Ah. koo xam dana faral di am. nga xam réeroo moom ñaare bu xësee am. maam dàq moo say tege. bu dàq xësee am dàq yi mën naa ñaaw mën naa jur ak noonu. dana ñëw ci réeróo bi sax. te te foofu day garaaw ndax damay wax ni ñoo xam ne bu ñu musaa feebar. fii lañuy fajoo. waaw bu demee ba ñi fajee feebar. waaw soo kon problème dana am. ok léegi jàngalekat bu sart yi xësee mat. Mm. su fekkee ni moom waa ji woon na ko. Mm-hmm. moom itam ñëw na indaale xam-xamam. Mm-hmm. ñu wan ko régalement intérieur. ñu ko daara ji nii lay doxee. ñu bari hmm. bari na problème boobu la am. waaw ah. booy ñëw duñ la wax li nga fiy hmm. fekk. da ngay dem ba si biir mu gis lu bokkut ak. lañ ko waxoon. lam lam lañ ko waxoon. est-ce que su boobaa li ma bëgg wax foofu mooy jàngalekat bi ginnaaw bu matalee sart yi mu war a def yëpp. Hmm. na sañ-sañ nag bu demee ba gis lu bokkut ak lañ ko waxoon nag moo na andi nag ak njàmbaar pour mën a taxaw wax ak ki nga xam ne mooy responsable. bu wér foofu sax dafa am yuy manqué nag. waaw dafa am yu yuy manqué ndax ñi ëpp ci ñiy jàngale ji léegi defu njàngale mi métier dañ ko def wasila moyen pour dégager bu foofu bu ñu amoon problème cent mille ñu régler cent mille bi bu cent mille bi xasee ba rek lu ci dolli ko waat rek mën nañoo quitter daara ji kooku itam bari c'est pas normal ndax uquud aw foofu benn uquud lépp loo xam ne convention la wafaa uda caa baax soo dikkee ci daara ji ñu ne la nii la mel. teg teg du yomb ndax lan daara la tudd ñun ñu duggoon ci daara yu yàgg yaa yàgg yàgg jàngalekat yu yàgg yaa yàgg di ñu jàngal wax dëgg yàlla da nga dégg daara boo demee da ngay mel ni ku dugg ci ay armeel ay cimetière lu tee da ngay góorlu xam ne yow lii la yàlla euh, wërsëgal nga deewoo fa nefa nefa ba sa alxuraan mokk nga dem ñibbi wala boo fa demee ba def loo xam ne nii def nga li nga mën lépp te sottiwut nga dem wutiwaat feneen ngay jàllantu éducation boobu nag kiy jàngale ji bu fekkee ëndaali wu moom dafa jàng ci sago mokkal ci sago bind ci sago nekk kër baayam ci sago bis buy jàngale ci njàngaleem sago lay yóbbaale sañ sañ Mbàkke fii ne dongay daara yi léegi bu ñu taxawoo nag ñiy wut àdduna yi léegi daanaka ñoo bokk même éducation ndax kenn lañ ci ne sa bët bi kuñ ci ne sa bët bi suufa ngi ci bariwul dañoo négocier alxuraan ji xëy na ba seen xel neex njàngalem léegi mi amuli coono amul ab liggéey ba far ñu mokkal njeem mokkal nañ mm-hmm. ñu ci bareet bu ñuy mokkal dañuy mokkal mokkaloog rek gi xew mm-hmm. nafarub dàq weñ boo boo boo ko gëjee boo fay gëj rek maanaam muy gëj fi yow nga xam ne boo gëjee jàng rek gëj a mokkal mm-hmm. loolu nag ku ko yóbbaale fa ngay wute ji liggéey na nga xam ne gone yii ci station yi ci fóorus yi yore ay socc mbaa ñu yore ay tàngal dàq oto bi ba mu taxaw nga jaay ko journal bi mbaa nga jaay ko li nga koy jaay nanga xam ne kooku fi ne sëñ bi ba muy dem Dakar séntu loolu loon Dakar. mais bi mu demee ba lii ne tikk ci kanamam nu mu def. Mhm. da ko jël en charge. ka ca bitim réew ñu ne la ma ngay jaay Europe fu mu mën a doon ci Europe mbaa Asie yor saagu quarante kilos ñu dàq la ngay daw di daw ba ngay xëy jàpp woon ne douane yi wala gendarme yi danañ la dàq wala policier mhm. lan moo tax nga jox nga teg ci sa bakkan ba loolu nga mujj nga mujj ci mucc yow ngay jàngale nag bëgg ne doo faste xaañ te moroom ja lépp ne normal boo dikkee dañ lay fontoo fii daal neexut te bu weer dee nga tàllal sa loxo buñ ca tegee lu matul nga di ko kaas loolu ci côté éducation bi la euh, sëñ Mbàkke kon jàngalekat bi buy jàngale gi day liggéey kuy liggéey da ngay fas jom mën nga faa fekk lu wóote waaye nag lépp lu ñu fa mën a muñ boo ko muñee ki nga koy muñee da koy xam sëñ daara bi dana dem ba yàgg mu xool ne gis na kii kat li muy tegoo ëpp na te maa ko ko teg ndax lan day nit ko am jom kuñ yaroon koo xam ne du ma delloo kon ak naa ko dollil vingt cinq mille ci weer parce que da koo jar mérite bokkut ak mahaara moom nga xool nga xool nga ak njàmbaaram waaye nag si Maxtaar foofu tam day am defo léeg-léeg dangay gis jàngalekat boo xam ne macha allah mm-hmm. alxuraan ji day rafet éducation bi day mat passé bi foo ko natt na ko mm-hmm. waaye ki muy fekk itam day xaw naqaree jëflante daqiqa nga xam ne kooku tam kooku tam day am koo xam boo taxawee mu taxaw ngeen daal di jàpp na fekk yow am nga ay kafaar si lépp mat na waaye nag li si metti mooy fekk ki la waroon na dalal mu am lu mu manqué daqiqa barakallahu fiik li ñu waxoon ci jàngalekat bi ci manquement mm-hmm. alxuraan desu ko desu desu sos daara ji ci capacité mm-hmm. dañ koy sas ci xam-xam yar kenn du ko inventé da nga cee am kafaa danga ci am mérite waaye bu fekkee da ngaa dox ba yàgg it yàlla sa wërsëgal la mm-hmm. nga daal di ubbi daara mm-hmm. tey sax xëy na ku la testé woon ci njàng doo ca demee noona mm-hmm. suñ la laajee sam yar fi mu jaar du demee noona effectivement gan googu nga am tam moom mu demee noona du ngeen mën a yàgg su boobaa li waxoon ci jàngalekat bi daa dem ci jàngkat bi waaye gis nga jàngkat bu jàngee fa mu war a jàngee ñu yar ko nañ ko war a yare mu daj la mu war a daj bis bu ubbee daara ba gis jàngalekat bu mën a jàngale bu daj lu lu lu lem daan daj ñoom ñaar waafaqa sunna tabaqa mën nañoo waafaqa sunna tabaqa eh, day mel ne la laayu bi ñu dëpp ci bool bi mm-hmm. nga xam daanaka ñoom mën nañoo ànd ba ñooñu dañu wax mm-hmm. da ngay mujj sax saa yu amee nag billaahi aleykum da nga gis ñu am benn tafahum boo xam ne mm-hmm. boo dikkee dootoo xam ko dootoo xam ko a xaj dootoo xam ko yor daara ji ku ko moom parce que kooku ñoom ñaar bu fekkee dañoo xaw a nandoo ci aw am lef ku toog rek baax na. nga xam ni kenn des fois di nga ko wóolu wóolu boo xam ni. da ko jox lépp. boo fa boo fa nekkul lu ñu jëflante ak moom baax na amul parce que li gën a metti mooy sañ Mbàkke mel ni nga war a mel te dajee woo ku mel na war a mel. loolu moo gën a métti ci àdduna. mais nag léegi nag foofu tom da ngay gis ni léegi bu fekkee ne kenn ci ñoom ñaar. Mm-hmm. parce que mu nii salbiyaat yi day am ci ñaar ñëpp. Mhm. maam positif ak négatif. Mhm. léeg-léeg ñaar ñëpp jag. waaw macha allah léeg-léeg nga fekk ñaar ñëpp jagat yi. Mhm. léeg nga fekk kenn ki jag kenn ki jagul ak si fu mu fu mu ci mënti doon. ginnaaw wax na ñaar ñee jagat yi. nañ wax bu ñaar ñëpp jagat yi woon parce que bëgguma. dañ ne borom daara ji bu jagadee. moom ku dëgg dëggu ku dëgg doo fa toog dañ jàpp. ku dëggu doo fa toog dëggu doo fa toog. effectivement ki ñëw bu dëgg it te borom daara ji dëggu du fa toog du fa yàgg léegi ñoom ñaar ñëpp buñ jagadee nag moo des victime bi nag mooy xale bi waaw waaw buñ jagadee ñoom ñaar xale bi rek kay dee ndax lan kenn ku nekk ci ñoom ñaar danga nekk ndax dañ ne ñaari dëgg du ñu xeex dëgg ak caaxaan buñ xeexee dëgg gañe bu xeex yàggee ñaari caaxaan la ñaari caaxaan képp ay yàgg. ma wax nga lu wax nga lu am solo bu ñu naan ñëpp jagadee xale bi. waaw xale bi rek mooy dee. moo tax man xale boobu ñu war a xamal téere borom a nekk ci diggante ñaar dañoo ñëwaat. kee bu nekkee ca lam war a ca lam bëgg ne kee dem ca lam bëgg ne xale bi la bàyyi rek muy mbërëg mbërëg lañ ko tuddee woon muy taxawaalu rek. suba da xanaa waajuru moo si des. mooy maanaam sax moom moo war a xamee nag nag. foofu dana ñëw ci dana ñëw ci parents yi parce que am nañ ci part de responsabilité mais damaa bëggoon. Hmm. daara joo xam ne ka jàngale jàng ñoru ko. Hmm. ka fay jàngulu jàng ñoru ko. Hmm. kenn mënut a fexe ba xale ba jàng ñor ko moom. effectivement foofu ñu taxaw foofu. day waaye waaw. xale boobu sax day mujj tàmm. lu bon ndax buñ ne acca dem leen jàngi wacc leen fee ñoom ñëpp xale bi day tàmm di jàng di fo waaw fo moom wala mu teg fa téere bi sax gaaw sàcc dem ci a kër ga fo bis bu yoo ko yóbboon ci daara ju baax day daw parce que la mu fay fekk du ko àttan daa tàmm noflaay ñu bëgg ko sonal ginnaaw bi mais loolu trahir mission la de maanaam loolu wor suñu borom tabaaraka taala bu wér xëyaana la waaw loolu wor la maanaam ni yow da nga bëgg avant bu ubbi daara ah. kii man na ko maanaam am kuy ñëw di joxe àll ñu war a sowee xale bi. xëy naan ñëpp ngeen waaye de loolu moom trahir mission suñu borom tabax. su boobaa nag xale boobu victime moom du jàng rek doyoon na mais day fàtte jàng bis bu bàyyam turé woon na jàngul bu ko yóbboo ci daara juy jàng laa ne la xale bi xel bi dootu nekk ci jàng. mbaa moom daara lay mujj doon te ki ko teg mooy ñaar ñam bàyyi woon ginnaaw ka ubbi daara te jàngalewul jàng ñoru ko ak ka doon jàngal jàngale te jàng ñoru ko moo tax xale bi jàng dootu ko ñor. bari na alxuraan yu bari yoo xam ne dafa yàqu la ko yàq mooy daara ja xale ba njëkk a dem moo baaxul kon xale bi mooy victime ci bu ñaar ñëpp négligé nga xam ne tey boo ko téye woon di ko defaraat daanaka mën nga woon defaraat lu tax la ab xar xar bu def ca laaxu caaxaan biig ñu ko ca naajoo mu yendu ba ngoon nga bëgg koo ngoos ak sa wéy yi ëmb ak mbomb mm-hmm. xale bee koy raw mm-hmm. macha allah Seydou Makhtar loolu nga wax nag lu am solo la parce que loolu dafa jamono ji surtout jamono ji ñu toll nii dafa am ak ñàkk déggante lu bari bari yoo xam dañuy am ci ci ci ci diggante ñaar ñooñu te wax dëgg yàlla boo ko dee xool fil xaqiqa jëru ko ndax maam jàngalem alxuraan xamal nit ki benn arab li si nekk ci tuyaaba nit mënu koo fay waaye bu pas-pas bi sellee te itam ñaar ñëpp yàlla teg leen yàlla tax leen a jóg maanaam borom daara ji ay am danañ jàng ah. jàngalekat bi itam dana mën a jàngale si ak tey ji bakkan waaye dana mën a tedd tam waaye daal samp ko ba pare mu nekk mbir moo xam yàllaa ko tax a jóg ba pare ñu nekkaat fa nag di dóorante ay loxo ak sànnante ak ay xeer ak di yëkkati ay kàddu yoo xam ne fan lañ ko séntu woon loolu daal jàpp naa ne bokkul génn na si cadre xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu xayriya waaw xayriya boobu ñaan ki gën si yéen mooy ki jàng alxuraan pare di ko jàngale maanaam jàpp naa ne xayriya boobu moom nekkatul si ñaar ñoom xayrukum man ta'allama mooy ki gën ci yéen mooy ku dem daara te jële ci daara ji lam ci war a jële wa allamahu bu sampee daara def ci daara ji lam ci war a def jeex tàkk waaw mu jeex tàkk bu sart bi matee moom alxukmu yaduuru maa al illa wujudan wa adaman <laughs> bu lay yëngatu rek lay yëngatu <laughs> Cheikh Saliou Mbacké radiallahu anhu ci lay ñëw mm-hmm. su la daan jàngale loo dana def ak yow jataay yow jàngalekat bi mm-hmm. ci mbirum daara ji ak gone yi su noppee woo gone yay jàng defak ñoom jataay ci jàng gi ñu war a jàng ak seen diggante ak sëñ daara yi jàng gu ko jàng ñoroon daa dem ba yàgg mu ne sëñ daara yi nañ far doon jëwriñi daara yi hmm, ñoo leen si liggéey bi waaw ndax day bañ ñaari pouvoir yi buñ xeexee day metti hmm. mu ne nag bu fekkee sëñ daara bi mooy jëwriñ ji dana def ci donga bi li mu bëgg ci waxtu wu ne bu fekkee da koy xëccoo keneen nag hmm, léeg-léeg nga bëgg a defi dara kenn ñëw ne lay ah ah demal yeewi sana ya xool ma boobu xekk ma ak lu am solo. waaw ah, macha allah Seydou Makhtar loolu day am na solo bu ko defee mbokk yi eh, loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax te xam ni maanaam yëf yi dañuy wax ne ku ci séntu payug tey yaa ngi si njuumte. manees na see tedd nag waaye fayug ëllëg yi wax dëgg yàlla moom daal jàpp naa ne moo tax ñu bari eh, di di di di di di di sonn waaye jël sa lépp daal teg ko si ndax am na ñu ma gis ñoo xam ni. Eh, bi waa ji demee di wut ab jàngalekat. dañoo waxtaan ba jiwoo. noppee ñaankat bi ne ko waaw man de xam naa su ma gisee ku la tane xam nga ñëwagul su ma gisee ku la tane dama fay dem mun ne ko baax na bi mu jógee di jàpp mu ne ma sëñ Mbàkke man mu ne waajal balaa gis ku ma tane ma wut ku ko tane ah, nga xam léegi ñoom ñaar fi mu kenn taxaw dund si fi ñu war a taxaw ah, kee moom mi ngi xool ku tane kii ba mu dem kii itam mi xool ku gis ku tane kii ba mu ba mu ba mu wuti ko ah. kon foofu daa mel ni nekkatu fa siñ Mbàkke dañoo wax ne bokk na ci lii taxam mën a jëf-jëf ju baax mm-hmm. nga xam lañ la cay fay ëllëg mm-hmm. yaakaar na loolu ñëpp d'accord nañ mm-hmm. waaye bokk na ci lii tax a lu bon nga xam la la ca mën a dikkal ëllëg jàngalekatu alquran bi moo kawe jàngalekatu xam-xam bi ci dëkkaaleeg yàlla ñi jàngale alquran dañ ne ñoom fa yàlla ne lañ ne maanaam bu fekkoon ne lii mooy saal bi alquran ne kon nag lii ngay bëgg def bi nga toogee di jàngale ne mag gone yi yow yaa ngi ci biir kéewal yàlla nga xam ne yàlla la clôturé yaa ngi moom yéen dëkk keneen ku doon jàngale xam-xam fële na nga xam ne moom diggante yi mag yàlla am am na bunt bu ñuy war a ubbi waat moo naan la koo soxla yàlla nga naa mu ne ubbil bunt bii fii ngay jaar jàll hmm. ñaari martaba yooyu ku ko dendale xam ne yaa ngi ca ba gën a kawee hmm. bis booy jàngale alxuraan doo ko fooye macha allah sëñ Maxtaar loolu moom ab yóbbal la tey am na solo kon mbokk yi eh, noonu rek lañ koy déggee ki jóg di jàngale lu baax a ko tax a jóg hmm. borom daara ji itam lu baax ko tax a jóg melokaan yëpp matee nag nga xam ne ki nga jël mi ngi feeñal ak njàmbaar kooku tam li mu yellool nga defal kooku wàññiwul dara parce que moo jaadu sax nag su ko defee loolu ak ak ak soppante dana fa am ak jubóo dana fa am te yéen ñaan ñëpp di ngeen tedd waaye euh, bu nu xësee xam ne am na si kenn si ñoom ñaar kon wàcc na aw yoon su waa moom fokk jafe-jafe dana commencé am te bu boobaa ki nekk seen biir moom mooy nekk victime te boobaa yéen ñaan ñëpp dañu ci am part de responsabilité kon mbokk yi ñoo xam ne nag képp koo xam lu baax la tax a jóg fa ilahi alhamdu na nga sa nekk waaye koo xam ne yàq la tax a jóg itam nañ jël ay responsabilité ci baare ci yàq googu ak kommante doon parce que wa kayfa axaafu ma ashraktum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi Abdou Aziz Junior danaa wax ni kii jóg ngir yàq lu bon lool lu mu ko jaral yow mi bëgg a defar nar a jaral lu ëpp loolu waaw yow mi taxaw ngir sàmm téere borom bi maanaam kii ko bëgg yàq maanaam lu mu ko jaral ngir yàq ko yow itam naa la jaral na nga def double bi pour tiire borom bi nekk fii ak compliment doon nag ci ci ci ci ci ci ci ci ci ñoom ñaar mhm. su ko defee bu loolu amee nag mbokk yi dañuy jàpp ni kon euh, njariñ rek moom moo si juddoo jàngalekat bi dana nekk si jàmm mhm. borom daara ji daara ji dana mën a tegu si aw yoon mhm. ñi fi ñëw di jàng itam danañ mokk alxuraan tegu ci aw aw aw aw yoon su ko defee Euh, la sa des nag mooy ak fay dëgg-dëgg moom mi nga aju si kemt lay li ñuy sellale liggéey bi waaye lu wér ba wér daal mooy ku ci samp sa bopp nga xam ne jubluwaay bi mooy am teraa ngay àddina képp moom pour nga am ko si moom dana dana dana dana jafe te nit ki sax ma daal foofu laa lay jox sax nga tàggoo parce que nit ki li ñu koy jox ngir alxuraan ak ku manti doon bu fekkee da nga ciy xewlu war ngaa dem ba boo tiimee di ko xewlu nga ne waaw man lii ñu ma jox ngir alxuraan ma di ko xewloo est-ce que taxaw naa ni ma war a taxawee alal ji nga xam ne yow yaay jàng ñu di la ko fay jamono bu ñu la ko war a joxee nga war koo xewloo mhm. war sa xel war naa dem si est-ce que bi ma nekkee si classe bi def naa li ma war a def war a du ma ko def boo yëgee ni corrigé nga sa bopp rek booy lekk xaman li nga lekk léwul te li nga lekk posen la jërëjëf kon seen maxtaa dañ lay jox nga xam naa du gudd kalimatul axir insha allah waaw du gudd euh, kiy jàngale di wër di wër fu mu jàngalee ku mat a jàppale la bi muy wuti fu mu jàngalee mënoon naa dem jàngi leneen mënoon naa xëy ci leneen mënoon naa dooni keneen ndaw lu man alxuraan dafa am xayriya boppam muy ngëneelal bopp su wëlbatikuwaatee nag bëgg caa liggéeyal yàlla kooku beneen xayriya la muy wa allamahu kooku it ku mat a dimbali la ci bu nekkee sa kër di jàngale ngay njaatigeem su nangoo ngir yàlla na ko jàppale bu ëllëgatee mu mën a taxawal. loolu maa ngi koy dénk waa daara ñi nga xam ne ñooy njaatige yi. ñu ñu jëmee ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ yilif ndax gone goo xam ne jël na léppam dem jàngi alxuraan mënoon def mécanicien mënoon def emprunté mënoon defi lu ne mm-hmm. bindu kaamila mokkal alxuraan bu ju rafet mm-hmm. ñu ne joojoo mu mënoon ko fi ne kupp mm-hmm. defi leneen lu ne bu ko neexee nawetaane su ko neexee dem jàngi mécanicien lu ko neex jàngi ko mu ne defaat kupp métier ginnaaw bu mokkale alxuraan di dart dart ca daara ya nga xam ne fa la newoon di jàng mu nekkaat fa di jàngale kooku nañ ko yërëm ah, te jàppale ko te yàlla tax macha allah bu defee nag lam war a def rikkawaay nes ko jox les ko war a jox macha loolu hmm. du ma mën a yeggale te jaaruma ci kookoo tam nag ba mu fi bàyyee métier yëpp na xane ay moroom a ngi ci naaj wi di daw ay moroom a ngi ci naaj wi di yenu di lu diis ay moroom a ngi ci naaj wi du daj lu ak dëgg sama borom dimbali ko mu bokk ci ahlul quran ba toog ci ker wëlbatikuwaat toog ci banc di jàngale alquran te léppam ñu ne ko nañ la ko wallaay la moom itam na xoolaat ci conscience tranquille am fexe ba liñ ko sant mu am ca ndam. macha allah loolu daal. atteb géer ña ak géwél ña la olof di wax. lu yomba atte la. kenn ku ne boo jëlee géer ña bu ñu demee toog ca fañ war a toog. géwél ña toog ca fañ war a toog nee na penc mi jàmm rek ka fi am. kon nag jàngalekat bi bu defee li mu war a def. kiy jàngulu itam def li mu war a def. te kooku balaa mën a def li war a def nañ jàllaat ca parent ba. ki fi indi doomam itam day war a def li mu war a def. ndax ki yore daara di fay. fayul ci banque fayul ci prêt fayul ci mbay dañ koy jox dong moom lantinoor la du tëjatiku la daje ca daara ja bu ca añ génnee réer génn ca fayum courant ak ndox génn ca la ci des daanaka ci da koy delluwaat ca daara ja kon nag ka fa war a indee nag di ko fàtte ci wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah sëñ Maxtaar loolu moom lu am solo la te jàpp naa ni eh, li moom bu ko ñu bari déggee eh, dana andi saafara ci lu ci lu ci lu bari te itam li ñu war a def ci suñu xel ñun ñëpp mooy jéem a valoriser alxuraan maam jéema a valoriser alxuraan jële ko fi mu nekk yóbbu ko fu kawe jàngalekat bi nga wax nga xam ne qualité yi mel na ni mu war a mel borom positif la borom jikko ju rafet la def li mu war a def ànd ak yow ay at yu bari mokkalal fi ay ay nàngami nit kooku nag jaadu na bu fekkee ni teraanga am na nga wutal ko ab barab wala nga jàppale ko mu mën a def li nga def waaye Sénégal nag yàlla ñu yàlla jéggal waaye lépp ci ci nit ñi lan lay xëy liggéeyloo ba nga li lay liggéeyloo ba nga xëy màggat euh, doo man dara tey nag loolu nag wax dëgg yàlla li naan nangamu euh, nangam taxut ab doo nga di dem daara ah, kon daal bu sart yi matee ah, ak jàppalante war naa am kon mbokk yi loolu mooy li leen andiloon ci mm-hmm. tey ci yaru ak yare ci numéro 12 dëppoo ak le 7 septembre 2023 mm-hmm. di ñaan borom bi tabaaraka taala gën ñoo taxaw ñoo defal tawfiq ak tey siir barkeel suñu ak dund waaye defal ñu njariñul euh, alxuraan ñu nekk ñoo xam ne ish bil wax yi dund suñu dund gi ñu fexe ba di ko lëkkale ak alxuraan te loolu yomb borom bi la yàlla nañu ko borom bi tabaaraka wa taala defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim fastamsik billadi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون